que contrairement à ce qu'on pense man xam nga mënoo nekk syndicaliste directeur ay syndicaliste gérer leen parti politique te mënoo amoo laar de négocier un peu mais dafa am toujours une limite je j'estime que on est une belle coalition je crois fondamentalement encore au projet je pense que effectivement il faut am ay alternatives yu mën a peser ci débat bi je pense que waa aar am nañu xam-xam bi am nañ jaar-jaar yi am nañ fit bi pour mun a peser sur le débat maintenant aussi il faut que yeneen force yi yeneen acteurs yi plutôt jàpp ci ni ñu jàppee mooy dafa am ñoo xam ne ñu bëri ñuy ñuy ñuy dëkk ci xelu sénégalais yi ñoo xam ne war nañu dimbale multipartisme bi ak débat pluraliste bu exister mm-hmm. comme ni ngeen koy defee nii di invité di traiter ñëpp sur le même pied d'égalité dafa am ñoo xam ne dañu far nekk ay chroniqueurs yoo xam ne chaque chaque semaine ñu ngi ne benn dañu njëkkoon ne benn opposant moo fi pendant des années tox loolu ci boppu Sénégalais yi ba mu yàgg ni nangam sàngam après am ay acteurs yoo xam ne acteurs société civile lañu yoo xam ne tey dañu far mm-hmm. am extra mais si bu dee da ngeen di ñun aar wala l'ensemble des autres forces dañuy xeex dañuy jàkkaarloog di débattre ak ñoo xam ne c'est des encagoulés far di leen jàppale ci fànn ñu ne ça devient difficile cest à que pays bi démocratie bu ñuy wax ak transparence bu ñuy wax ak équité bu ñuy wax nekkul réalité mais à moment donné Ousmane Sonko était seul contre tous. non non 2019 Ousmane Sonko amul attaque. bu mu fii est-ce que du seen xereñ. nañu nañu est-ce que du seen xereñ moom moo leen war a may tey ngeen briser. Euh, chaîne yooyu Ousmane Sonko ah da ngeen war a bañ. il est il est parfois seul contre tous. dama ni si la déontologie et l'éthique quitte aussi beaucoup de professions aujourd'hui waxuma je peux faire le procès de personne de mais tey xam nañu ni da ngay am ay organes yoo xam ne teewoo sax ñu lay ñu lay ñu lay ñu lay attaqué violemment te teewoo fa mhm. juste pour mettre en relief quelqu'un d'autre loolu du xarañte kenn rek dem rek def nañ ma ko ci benn plateau ma fa je n'ai rien à faire là-bas ils disent daaw jaar nga fi eh, jaaroon na fi dafa mer loolu la ñu fàttali ko sur sur deux heures ou trois heures de débat wax nañ ko posé nañ ko benn question mu mer mais si on se bat des des, des journalistes yi toog di animer chaque jour émission di animer chaque jour débat bokk euh, euh cellule communication beneen parti. Mm-hmm. donc loolu bu ñu bu dee yéen mënu leen gérer loolu CNRA aussi discrédité na wu parce que la RTS fait pareil ils peuvent pas truc bon Dieu. c'est extrêmement difficile. notre secteur est en crise on l'admet. il y a il y a il c'est pas que votre secteur. c'est les ordres il y a une a les ordres dans les ordres les ordres du pays. les ordres. donc on est dans une situation très difficile loolu tax ñun Sénégal dañu war a def des assises nationales bokk na ci suñu programme des ordres.